AGT News juge Maham Diallo dafa yabaate Maham Diallo daa yëpp nit ñi Maham Diallo dafa yëpp Ousmane Sonko du samay kaddu kaddu yi daam mbóoj la mu ne ki nga xam ni moom moo di usman Sonko daa demoon ca bureau doyen des juges ñëpp a ngi koy fàttaliku Maham Diallo di ko laaj ci lu jëm ci yow ndax da ngaa séq dara ak Adji Sarr ou pas Ousmane Sonko ne ko li nga may laaj nii bu ma ko laajati ah, nekkul li nga xam ni moom moo fi dal di indi li waral Ousmane Sonko demoon ca bureau doyen des juges c'est parce que Adji Sarr dafa bind loo xam ni moo di ab plainte ñeel wàllum viol du moment où mu ne lay toppee Ousmane Sonko kon amul leneen ñu fa war a waxtaanee lu dul loolu lam def ak lam defut yoonu kenn nekku ci lam dugg ak la mu génn moom Ousmane Sonko yoonu doyen des juges nekku si moo war waral Dame Mbodj ni doyen des juges dafa yabaate doyen des juges warul woon yëkkati kàddu yu ni mel nan da koy jéem a laaj ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko dambooj Mbodj mu ne lépp loo xam ni dafa ñeel boobu lépp dossier wàllum viol la ak menace de mort dañ koy posé Ousmane Sonko dafa war a jëm ci viole ak menace de mort ani lan mooy waral moom doyen des juges muy jéem a posé Ousmane Sonko question boo xam ne dafay jëm ci wàllum vie privée am amul daray vie privée wu Ousmane Sonko boo xam ne moom doyen des juges war na koo mën a posé comme ab question question bi mu ko war a laaj mooy lan ndax danga ngaa aji Adji Sarr pa bu dee déet indil ma ci ay preuve loolu moom mooy wax ji waaye pa ndax am na loo séq ak moom wala déet mbir mi di wane que ne am na loo xam ne moo di objectif bi am na lu ñu bëgg am na lu ñu visé nekkut lenn lu dul daal di fexe ba Ousmane Sonko ñu yóbbu ko ci la nga xam ni maître Dior Diagne bindoon na ko ci message mu rëcc dem ci kenn ci avocat wu Sonko yi muy nañ ko def comme nañ defoon ca France ki nga xam ni moom moo di Dominique Strauss-Kahn loolee lañ bëgg a def Ousmane Sonko ci loole lañ ko bëgg a indi ci loolee lañ ko bëgg yóbbu tout simplement moo tax ñoom ñu daal di laaj loolu Ousmane Sonko ndax ñëpp xam nañ ni procès moral lañ bëgg ak moom procès moral nag boo ko déggee mooy kanamu tribunal sénégalais yëpp di setaan ñuy yàq ab deram maanaam di saltel deram di jéem a indi ay wax yoo xam ni day jóge ko ci aji Sarr di ko teg ci deru Ousmane Sonko naan ñoom ñaar jaar nañu fii séq nañu lii def nañu lii bu ko defee sénégalais yi ñenn ñi nga xam ni dañoo comprendre que ni mbir mi pour éliminer Ousmane Sonko moo ko tax a jóg ñoom ñu daal di génn ci moom ne kii kat kañ yaakaaroon ak kamu doon nekkut benn wala ñu jéem a fexe ba dugal sénégalais yi ci seen bopp que ni Sonko ak 14 yi fi am yëpp ne génn leen yéen ñu daal di dem ci li nga xam ne moo di front résister ak le président Macky ndax daf ñoo bëgg jaay doole éliminer ñu politiquement ndax gis nañ sénégalais yi fi ñu daal di toll bu defee sénégalais yi ne Ousmane Sonko milé daf ñoo yepp Ousmane Sonko milé moom mooy le responsable des quatorze morts ici au Sénégal loolee mooy li nga xam ne moom Dame moom la bëgg a junj moom la bëgg a wax li xam ne nag moo am ci mbir mi et très simple mooy que ne procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom boo moytu lay nekk mbir moo xam ne dafay daal di am ñu leen wax léegi kese mooy liñ ci jublu ndax Dame Mbodj li mu wax mooy que ne pourquoi Ousmane Sonko ñu koy poser yooyu question moo tax yéen itam dañ leen koy laaj ndax bu fekkente ne viol ak menace de mort moo tax ñu topp Ousmane Sonko kon question yi ñu koy poser yëpp ci loolu dong la war a daal di mën a yem waaye viol nag nekk nekkul ay kaddu moom moo koy dal di prouver nekkul itam ay waxi kese xanaa ka ñu accuser moom ñëw def aveu aveu mooy mu ñëw waxal boppam que ni exactement kii li muy wax ni man maa ko def dëgg la te nekk na itam loo xam ni c'est avéré bu fekkente ne loolu am na moom mën nañ cee jàppee nit ki que kii def na waaye bu dul loolu amul leneen loo xam ne mën nañ ko koo toppee lu dul ay preuve yu werte woor ay preuve yoo xam ne mën nañ koo jël teg ko sur la table daal di koy vérifier ne lii kat kii moo ko def kon dañ ko ciy daal di topp te benn preuve kese moo mënoon dugal Ousmane sunkoo rapport bi nga xam ni docteur Alfousseyni gay daal di na koy defar ci boobu boobule rapport bu doon dañ ne am na ay traces de viol par rapport ak Adji Sarr kon Ousmane sunkoo tey jii duñ fi sax toog di wax wala di daal di tergiverser konoon ma nga procès bu yàgg ñu daal di xool ndax lañ bind ca rapport ba dëgg la ou pas waaye rapport ba dafa setal Ousmane Sonko avant dara di xew am ñi nga xam ne itam ñoom ñooy ay témoins yoo xam ne na nga génn sa yoon capitaine Touré mi doon def PV yi moom itam setal Ousmane Sonko ne Adji Sarr lam noonu wax amul woon dara lu ci cohérent Coran amuloon dara loo xam ni daal dina ci tegu ci yoon te sax da ko doon wax nan kaan ndax lii may def du ma ci am benn problème ndax sama patron du ko daal di yëkk madame taal mi nga xam ne moom mooy itam ki yoroon Adji Sarr génn wax ne Adji saar waxoon na ko ne ko man damaa nekk ak kenn koo xam ne autorité la ci réew mi damaa war a dem le président de la république Macky Sall te beneen autorité boo xam ne ku siiw la ci réew mi moom fay daal di yóbbu am yeneen i ay preuve itam yoo xam ni dikk na jugee koo ci ki nga xam ni moom moo di MC ak réquisition téléphoniqu yi ñu def ci diggante Mamour Diallo Gabi Sow docteur Alfousseyni Gaye ak ki nga xam ne moo di Sidi Ahmed may loolee lépp boo ko dajalee nekk ay preuve yoo xam ne yëpp dafay ñëw di setal Ousmane Sonko boo déggee ñu naan a décharge rek xamal ne moom mooy setal Ousmane Sonko donc toutes ces preuves là son à décharge par rapport à Ousmane Sonko donc lu jëm ci wàllum procès ñëpp xam nañ ne waroon naa mën a ñàkk waaye actuellement li nga xam ne moom la ñuy jël comme alibi mooy que ne Ousmane Sonko a refusé de répondre au Sonko aussi a refusé de répondre aux Adji Sarr refus de réponse boobule moom Ousmane Sonko daf ko boole ak leneen mooy preuve ñu leen fi liimal yëpp ak beneen bu gën a doy waar mooy rapport interne bu gendarmerie nationale bi nga xam ne Ousmane Sonko da koo yëkkati teg ko sur la table ne kat Serigne Bassirou Gueye procureur de la République du Sénégal moom moo nekkoon apparemment Mamour Diallo à la du complot kon man lan doyee tontu ñi nga xam ne ñoo di parquet ñoom ñi nga xam ne secret par rapport à Ousmane Sonko jéem a débale moom benn intimité am jéem a xool naka la ñuy def ba daal di yàq ab deram loolu yëpp mënul tax sénégalais yi di accepter à ce que Ousmane Sonko ñu koy éliminer politiquement sénégalais yi mënuñoo accepter ci lu jëm ci Ousmane Sonko ñu koy bàyyi moom ñu koy yàqal ab carrière politique am tout simplement pour des faits yoo xam ne ñëpp xam nañ ne mënuñu see topp ab nit ba daal di koy tëcc lépp loo xam ne da nga koy toppee nit ci wàllum viol dafa war am preuve yu nañ aji caare jaw ak kalifon Sall seen problème bi biñ ko amee jiiñ kalifon Sall viol ab certificat médical moo ñëw daal di setal Kalifone Sall mu set wecc aji caare jaw loolu nga xam ni moo di procès bi moom Californie toppee ko mbirum coups et blessure volontaire waaye nag kaawu Ousmane Sonko bile dafa xaw a par rapport ak li nga xam ni moom la Californie doon ndax Ousmane Sonko il est un probable président la République du Sénégal donc il n'est pas n'importe qui te kenn du ko bàyyi wala di ko seetaan ñu koy dugal ci loo xam ne ëllëg sénégalais yëpp danañ ko daal di rëccu loolu moom mbir mi ak ak yelleefu doomu te ñu ci bëri xam nañ ni waroon nañoo mën a am li ñuy woowee liberté provisoire buñ leen mayoon ay liberté provisoire ñoom ñëpp dinañ delluwaat seen ay njaboot nekk ci jàmm ak salaam waaye nag téye bi ñu leen téye na ci li nga xam ne itam dafay téye tension ci dëkk bi bokk na ci li nga xam ne itam dafay daal di maintenir lépp luy violence ci réew mi ba waral marche yi ci réew mi bëri ak itam préparation bu métti métti boo xam ne ñu ci bëri ñu ngi koy def ngir waajal ay manifestation comme le 6 janvier bii di ñëw te du ñàkk fan yi nga xam journal journaliste ak ñiy liggéey ci wàllum presse ñëpp dinañ def ay marche par rapport ak Pape Alé Niang tëye bu arbitraire bi nga xam ni ñoom dañoo jàpp ne moom lañ ko daal di tëye lu ni nag mooy la nga xam ni moo war a jeex ci suñu Sénégal bu fekkente ni bëgg nañoo dund carrément dans un pays démocratique bëgg nañoo dund carrément dans un pays où paix et la sécurité mais aussi dans le respect des droits fondamentaux et aussi dans le respect de la démocratie la liberté surtout celle de l'expression AGT News